muy Tawfekh ju rëy kenn xamul fu mu yem. gaaw fii ci Tawfekh Production ngir vidéo bu ñu dugal rek nga mën see jot si sens. kon dafa mel ne Tawfekh Sëñ Tuubaa rek am solo. salaamaaleykum wa rahmatulah ñu ngi lay nuyu. ñu ngi leen di ziare bu baax ci dëkk bu sell bi di leen ci jàmm sëñ Fallou Dramé maa ngi bàyyi ko Dakar. waaw sant yàlla bu baax a baax a baax xam naa am nañ jafe-jafe waaye mën nga mën ngaa wax jafe-jafe ndax bisu sëñ Tuubaa moom lépp lu si waaye daj moom wax dëgg yàlla xéwal ñi ngi bàyyi ko Dakar 4 heures matin te fii ñi ngi fi yegg ay 2 heures waaw kon yoon wi moom xaw naa xat trop trop. tey di 17 safar ak mboole yi ngeen gis fii ci Jumaay Touba naka ngeen gisee euh, euh, commencement màggal gi. waaw loolu moom day feeñee ne sëñ Tuubaa moom lu mu daan wax rek sama tey gu ne gàcce sama démb mbirum sëñ Tuubaa moom lu amul tànk ginnaaw tànk kanam rek la waaw te Cheikh Saliou Mbacke daana wax ne ñaar buñ nekkee kii fonk màgg kii fonk màggal gi kii fonk màggal gi kii fonk màggal gi chaque jour dana gis li mu féetee kaw koo ko fonkul moo tax toujours rek ñun taalibe yi waxtu bu jotee duñu amati benn yitte duñu amati benn bëgg loolu sant la sëriñ borom waaw waaw di ñaan taalibe rek ñi gën a bàyyi xel war may dëkk bi ndax sëñ Fallou Mbacke moo nekkoon ñaareelu xalifa sëriñ Touba waxtu moom nekk si xalifa gi moo woote màggal gi fii si Touba waaye moom sëñ Fall daf ñoo jàngaloon nan la ñu war a màggalee bis bi dafa waxoon ne bal azimuhu bi tilawatil quran mu ne nañ ko màggalee ci jàng alquran kon bokk na si ni ñu war a màggalee te sëñ Fallu jàngal ñu ko bu si njëkk mooy yéene santal sëriñ bi boromam waaw ñaareel bi mooy zikrullahi tabaraka wa taala bi anwaahi mooy fexe ba jàngi xasaayit waaye tamit fexe ba def ay istixfar waaye bokk na si nga xamante ni moom lañ war a màggale te Sëriñ Fallu Mbàkke jàngal ñu ko ba tey way taxamu taxaman li yataame wal masakin mooy fexel ba néew doole yi ñu fexe ba berndeel leen ndax Sëriñ Saliou Mbàkke da daan wax ne màggal Tuubaa ñett la jaamu yàlla sant yàlla berne kon berne googu da see nekk maanaam lu am solo waaye ñeenteel bi mooy wasilatu rahim maanaam bis la boo xam ne bisu jokk mbokk la kon bisu bu yokk mbokk la kon loolu tamit nañu ci bàyyi xel baax juróomeel te mooy bisu mujj mooy wa ziyaaratu saalihin mooy barab yu baax yi fexe ba ku nekk boo ñëwee si barab bi nga fexe ba dugg ziyaare ndax yunus sallallahu alayhi wasallam moo wax ne alxabru imma rawdatu min riyaadi janna yunus sallallahu alayhi mu ne xabru léeg-léeg day nekk dër dër yi àjjana kon loolu bis la boo xamante ne képp ku ñëw rek na nga bàyyi wàlla xel li nga xamante ne maanaam moom mooy ni ñu war a màggale ci bis bi kon ni ci bàyyi xel bu baax a baax a baax ku baax ñu ngi lay nuyu waaw ñoo ngi lay fay ku baax man Souleymane Ndaw Misra waaw am na fu ñu bàyyee ko ñëw fii màggal si Touba. dëkk bu ñuy wax Missirah waaden euh, euh, waaw xam na xaw na am jafe-jafe tuuti waaye sëriñ bi jaral nañu ko ndax wax dëgg yàlla euh, ñëw ci bés bi jaral nañu lu nekk moo tax ñu def ñu volontaire pour teewee si bés bii nga xam ne mooy 18 safar. nga xam ne moo doon tukkib sëriñ Tuubaa bi xam ne ñun julli yëpp dañ koo war di màggal ndax li maam Moussa Ka ne woon bu du dem gi wolof nasaraanu te kon billaahi ñëpp jëm niiraani kon ñun ñëpp dañoo war a jaral lu ne. maanaam mbooloo mi jot a gis maanaam kontaante ak xel mu dal ak te xam ne ndaw yi bëgg nañ Sëriñ bëgg goo xam ne maanaam li waxoon ne jamono mu ngi ñëw ndaw ñi danañ ma bëgg bëgg goo xam ne ah, maanaam amul fu muy yem. loolee boo xoolee mbooloo mi ndaw moo ci kon da lay wax li waxi Sëñ Tuubaa ji mu ngi ñëw kon maanaam la mu waxoon ne wallaahu yansuru ni wal xalqu tatbau nii fil baxri wal baxri saanafan bila dërërin njëriñ laa te aw ma lor moo tax fu ma toog rek julli di fekk ma ko lii la waxoon Tuubaa waaw li ma leen di wax rek mooy ñu góorgóorlu fexe di ñëw ci bés bi ndax bés bi bu du toon moom duñ doon ay julli ndax wax dëgg yàlla bés bi su fekkee moo la def julit ndax keroog bi nga xamee ne sëriñ mu ngi jógee Mbacke Baari Jolof di dem ci géej gi keroog nee na nee na nee na fo nee na en ah, l'islam bi tilim na lool aajo woon a fóot moo taxoon sëriñ Touba jógee Mbacke Baari Jolof dem ci dem Ndar jógee Ndar dem ci géej gi juróom-ñetti at ngir suñ jëmm yi rek moo tax kon li may laase gaañi mooy ñu góorgóorlu di ñëw ci bés bii di ci feeñ ndax wax dëgg yàlla moo tax ñuy doon ay jullit tey waaw gis naa coppite ndax sama maam daan na wax na ñoom buñ buñ daan ñëw ci màggalug Tuubaa gi ci yoonu suuf la ñuy aw ci ay camion la ñuy dugg wax dëgg yàlla léegi da yi dugg ci oto boo xam ne wax dëgg yàlla day nooy lool nga ñëw fii ci màggalug Tuubaa gi te ci kaw tali ngay aw doo gis benn ndox ñëw fii ci màggal gi te ñoom nee ab cere lañ daa lekk te ñun fi mu soof la ñuy lekk wala tube wala aw ndawal kese la ñuy dundee barki Sëñ Tuubaa. waaw akasa ñu ngi lay sant di la gërëm. jërëjëfati. bismil ilaahi ma jungir teeru bis bi ma saaf bis ba yaayoo way ba géex mooy màggalug Tuubaa bismil ilaahi na ngeen jug teeru bis bi nu saaf. bis ba yayoo way ba géex mooy màggalug Tuuba mooy bis bi tax tey ku ney def bis te deefu la caw bis boo fi dégg dafay waajal màggalug Tuuba bu ñu ngi leen nuyu di la ziare maa ngi lay dollee ziar bi man ci dëkk bi laa dëkk Tuuba Asalem wàccaay màggal gi am mbégte rek lii lépp sëñ Tuubaa la ba muy metti moom la woon be muy neex ñun la kon bu ne sant leen sama borom lépp luñ ci man dañ ko war a def sëñ Saliou nag dafa waxoon ne màggal gi ki ko fonk ak ki nga xam ne fonkul ko mënuñoo yem toujours da ngay gis ki nga xam ne si ne moom moo ko fonk lim lay rawee toujours da nga koy gis kon bis bu mu ñëwatee dañ ko war a farlu ci fonk ko cant gi nag li ci jiitu mooy jàng alxuraanu karim def salaatu ala nabi defar ci këru ilaahi daal di berne waaye ku ñëw Touba nga xam ne waa Touba berne rek la ñuy def boo dugg dëkk bi lan lay njëkk a carré mooy café la commencé laa defar ay teranga te loolu lépp dafa bokk ci liggéey bi nga xam ne sëñ Touba moo ko liggéey yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu demee ba liggéey ba lépp sot li wax mooy yaa malikal mulki yaa ma jël an xamadi irhan jëme xamara yi xa jërëre a yow suñu borom na nga yërëm jaam ñëpp te ba ko neexoon ay noonam ya ko daan teg lu mu ne leen dugal leen sawara waaye na nga ñëpp la yaa malikal mulki yaa man jëlle an xawrin irhan jame xawara yéxa jërra yërmal jàmm ñëpp kon loolu kooku bu ne sëñ Tuubaa ne man lottu naa ci sant sant sama borom kon ñun ñi sax lottu nañ ci sant suñu borom kon dañuy dañuy waslu àq rek waaye lottu nañ ci sant suñu borom moo tax bisu daal tey ñoo ngi koy dund di ko dund mbégte di wax ne Dakar rek mboolem région yi nekk Sénégal kenn desul ñëpp ñëw na Mbuur rek fu daal ñëpp ñëw na daal wax dëgg yàlla loolu amoon ci li wax ana ana lan ngay dénk mboole nga xam ne ñoom ñoo teewee ci mag ñoo teewee màggal gi. waaw li ma leen di dénk mooy ñu góorgóorlu xam ne dëkk bi nekku dëkkub caaxaan sëñ Tuubaa avant mu koy am lu ne maanaam dugg ci lu ne coono yi métti lañ ko teg moo tax nga gis sëñ Muntaxa da ko fonk moo tax muy ay wat ci sag yu bon yëpp mu koy tere loolu bu koy tere njariñ njariñam la waaye ñun suñu njariñ la li ñu ñuy bañal mooy du may ëllëg ndax sëñ Muntaxa lépp lu muy tere yàlla tere na ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam tere na ko sëñ tere na ko kon moom maanaam diglewu dara daa fekk lu fi nekkoon ma daal koy feddali daa fekk loo xam ne da nga ko doon tere ma daal koy fàttali nit ñi kon ñi nga xam ne dañoo ñëw ci Touba na xam na ñëw na dëkk mat ab dëkk na xam ne ñëw nañ dëkk boo xam ne mooy dëkk sëñ Tuubaa te sëñ Tuubaa dafa bokk ci jàmbaar yi nga xam ne mboolem kuy liggéey Rasulullah sallallahu alayhi wasallam moom mooy si jëwriñ kon ku ñëw fii na nga xam ne am taw fex bu baax a baax na ñoo xam ne tey bu sañoon Touba la ñuy ñëw xam ne ñëwoo Touba tamit jàpp naa sama xel ma nga kon ñu am tawféex ba ñëw nañ sant yàlla baax. soxna si na nga def tur beeg sant bi. man maa ngi tudd Xadimu Serigne Saliou. waaw depuis kañ ngeen ñëw fii ci dëkk bu sell bi. Mm-hmm. Touba Mbacké dañ fay ñëw tey ngir euh, Serigne Touba sant la ko yàlla sunu borom parce que maanaam liggéeyam bi moom mooy liggéeyam bi moo liggéey la woon sangu sang yàlla suñu borom liggéeyal ko sangu sangi Seydina Mohamed. tey ñu ñëw ñun ñëpp sant la suñu borom maanaam liggéey bi yëpp ak cant la cant moom moo tax ñu ñëw fii ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci Seydina Mohamed sant suñu ñaari waajur ñoo ngi sant Serigne Touba bu baax a baax ndax Serigne Touba maanaam moo yeyoo sant tey lépp lu nu am Serigne Touba la lépp lu nu mel Serigne Touba la mooy suñu yaakaar àdduna ak àllaaxira te Serigne maanaam lii nii liggéeyal na yàlla suñu borom liggéey Seydina Mohamed waaye lii maanaam li mu liggéey yëpp maanaam ñun ñoo ci ëppale daal ñun jaam yi parce que mën naa Serigne Touba daal ñun la doon liggéeyal daal di ko bu baax nag di ñaan yàlla nag chaque année chaque année ñuy ñëw di ñëw di sant Serigne Touba bu baax si liggéey bu mag bi mu def parce que li dafa yombul maanaam soo xoolee sax di nga xam ne lii maanaam sëñ bi dañ koy tuddee sëñ bi rek mu yor jëmm doomu aada ba ñun ñu mën koo ñemee mais suñ ñun sëñ bi xam xamuñu lu mu doon ñun sëñ bi xamuñu lu mu doon dañ ko jàppee sëñ bi kon baax na yéen depuis fan ngeen jógee ak depuis kañ ngeen ñëw ñun ñu ngi jógee Thiès Thiès lañ jógee tey ji la ñuy soog a ñëw ndax ah, sonn leen ci yoon bi non bi parce ñu mën a bi parce sëñ bi avant même dafa sonn sëñ avant mu am lii maanaam dafa sonn mais coono googu il faut ñu daj ci tuuti mais maanaam sonn ñu sant sëriñ Tuubaa bu baax di sant ya sëñ Tuubaa bu baax di sant sama sëriñ sëriñ Saliou Mbacke man xadimu sëriñ Saliou maa ngi sant sëriñ Saliou bu baax a baax a baax parce que mën naa ni man nu ma mel sëriñ la nu am sëriñ Saliou la di sant sama borom kër nag Abdou Khadir koy sant bu baax a baax. ndax tey su ma ko tàggu woon mu ne ma doo dem kon tamit damay toog waaye maanaam moom moo lay liggéenti mooy jël paas jox la nga dem ne la ñaanal demal si jàmm ñëw ak si jàmm ak salaam maa ngi koy sant bu baax a baax. sëñ mi tur beeg sant bi. maa ngi tudd Abdourahmane Diop dëkk Darou Moussa magal fii si Touba dal fi magal gi moom kàr masala neex na trop ñu ngi sant sëñ Bamba nag mi nga xam ne moo waral lii maal bis ni ki tey gii moo liggéey ba wàcc ba pare sëñ Juba ne yàlla ne ko loo bëgg ma fay la ko mu ne xanaa nga jégg sama noonu yëpp. di sant Serigne Touba baax daal sama xol dafa féex. waaw salaamaaleykum wa rahmatulah maa ngi tudd Modou Mamour loo maa ngi bàyyeekoo Tiwaawan Tiwaawan la bàyyeekoo nii ñëw ci màggal gi waaw. ok c'est la première fois ngay màggal si wala yàgg nga yàgg nga koo teewee. non yàgg naa teewee màggal yàgg naa teewee màggal chaque année damay ñëw incha allah chaque année damay ñëw. salaamaaleykum ngi lay nuyu. waaw ñu ngi lay fay. Pape Mayoro Seck la. waaw man maa ngi jóge ba Louga ñëw màggal si fii non san soo ñu si yoon wax parce que wax dëgg yàlla jëm si bërëb bii moom daanaka tawfeex ak mbégte rek lañ ci am ba keroog ñuy agsi moo tax daanaka daal coono bi moom mën ñu koo yëg wax dëgg yàlla comme d'habitude rek xam nga sëñ moom bu wootee daanaka fu ne la nit di jóge di ñëw moo tax c'est normal bis bi mel nii wax dëgg yàlla ak cant rek la euh, di sant yàlla bu baax a baax bi ñu ñëwee ñu fekkee ko Euh, man fee teew wax dëgg yàlla sant yàlla bu baax a baax. c'est la première fois ngay dikk ci màggal gi wala euh, yàgg nga ko teewee. man nag wax dëgg yàlla yàlla dogal na ni euh, depuis ma xam-xamee ba léegi yàlla def na ni chaque année maa ngi koy teewee te di ñaan yàlla nag ma koy gën di teewe te di ko gën a mën incha allahu rabbi te yàlla def chaque année bu buy ñëw mu fekk ñu koy mën am am wér gi ak gàttan bi ba mën a ñëw matal suñu yéene daal incha allah. Akassa ñu ngi lay waaw jërëjëf sëñ bi kontaan nañ si yéen bu baax baax jërëjëf yal na yàlla defal ñëpp maagalu jàmm incha allah lépp lu fi waay fas tamit yal na ko suñu borom bi nangu yal na yàlla faj aajo yi defal ñëpp jàmm incha allah yal na yàlla def Sénégal jàmm incha allah bismil ilaahi ma jug ngir teeru bis bi ma bis ba yayoo way ba mooy màggalu go Tuuba bismil bis ba yayoo way ba géex mooy màggalu go Tuuba bismil ilaahi na ngeen jugu teeru nu saf bis yayoo way ba géex mooy màggalu go Tuuba mooy bis bi tax nga tal yorte la yar sa sikin dinaan sawar nga di dingat gor ya jëm Tuuba alhamdulilah soxna si ñu leen di nuyu leen ziare. delloo ziar. Casamance. na Sarr. waaw ah, magal gi daal dafa neex te tàmbaleegul. neex na torop barki yàlla ñoo nañu fii dug nañu si jumaa ji nañu ñëpp. billaahi magal gi moom amuñu amul morom barki yàlla. magal gi moom ins bi moom nu muy tàmbalee moom mu ngi neex mi ngi neex te eggagul fen kon suba dafa na xabaayal. Euh, macha allah mbokk yi dëkk Casamance sa mësu sa mësuñu fi ñëw lan nga leen di wax. dama ni di conseil ñu ñëw fii ndax dëkk bi dafa seel loo ñaan day nangu waaw loolu laa leen ñaan ñu ñëw ñoom ñëpp nag déwén incha allah. Euh, ndax lii mooy sa jëlbeen nga ñëw fii ci Magal Touba wala yàgg nga ñëw. non man yàgg naa ñëw daaw laa ñëw toon mais yàgg naa ñëw. waaw ba gis nga coppite diggante daaw ko ren ba nga dalee ñu non changé na non changement dafa am ba ma yëg ko sax billaahi sëñ Tuubaa rek mën lii day dafa mën changé nit billaahi da lay defar bàkk yàlla ñëw naa démb démb su ngoon laa ñëw démb ay 4 heures maanaam ndax yoon bi sonn ngeen ci yoon bi wala amoo ci benn jafe-jafe ba ngeen ñëw waaw yoonu moom wax dëgg yàlla métti na sonn nañ trop mais coono mbégte la moom waaw ndax ba ñuy ñëw wax dëgg yàlla métti woon trop sonn noon lépp xéwal la quoi lépp xéwal suñu Tuubaa la danga naaw danga sant suñu Tuubaa wér-wér ñu ngi lay fekk fii ci jumaa ji ba nga fi lan nga jot a ak lan nga fi jot a gis waaw mbégte rek barke Serigne Bamba di ñaan suñu doxam yàgg bi ndax gis nañu am na yokkute encore Baye Fall yi wax dëgg yàlla liggéey bi ñu ngi ko dox lu baax a baax a baax comme ni ko suñu déglee wax dëgg neex yàlla ñu ngi koy ñu ngi ko dox lu baax a a baax wax dëgg neex yàlla am na ci mbégte bu baax gis nañu gis nañu encore ay changement yu baax a baax ak ay changement yu kawe kawe ok akasa jërëjëf taxaw mbàkk mi yàgg fi loolu tànn ak wér yàgg ko ay màggali màggali màggal barke borom Tuuba du ñuy encore waa Tuuba mu dëkk ñëpp nuyu waa Tuuba ñëpp war a fay kuy gor bisub fayangi nañ a nañ wëq gaali te màggal màggalu gu Tuuba nun jëkk nan jëkku nan màggal ko rekk a ci des nañ def ba def safar la nit di raweeg maasam ku yeewu te xam ciw gàmm lay door waajal màggalu gu Tuuba la in zakartum ku koy tafsir te bëgg mu wér 18 ci weeru safar waajal nga ñëw Tuuba kon danga gis la azidannakum jabu wér añub safar dafee teew li wër na waa Touba. muy Tawfekh ju rëy kenn xamul fu mu yem. abonneel gaaw fii ci Tawfekh production ngir vidéo bu ñu dugal rek mën see jot si saa si. kon dafa mel ne Tawfekh Sëriñ Tuubaa rek am solo.